ñuy daal di dugg ci liggéey bi di leen dalal jàmm soxna Bousso. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. bismillahir rahmanir rahiim. iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud kàddu gu gàtt euh, jëmee ko ci ñi nga xam ne ñooy xale ñu sargal ak seeni waajur sëriñ bu mag bi dafa digle sàkku xam-xam bépp ko xam-xam am njariñ xam boobu nag sëñ bi dafa leeral di war a tax ñu di ko sàkk sëñ bi dafa wax ne fal taqsidu arbaatan inda da taallumin li kay tafuzu bil huda awaluha alxuruju min dalaali wa saani nafu xalqi dil salisuha al ixyaau lil ulumi wa rabiu te muy ñeent yu bi wax ne bu ngeen dee sàkku xam na doon seenug jublu li ci njëkk mooy génn ci réer ba mooy jariñ bindeef yi ñetteel bi mooy dundal xam fi nga fekkoon xam bi ngay jàng nga am loo ci yokk ñeenteel bi mooy kii sàkku xam-xamit lam xam nag mu di ko jëfee sargal gi itam ab soññu la daanaka dañuy door a dugg ci buntu sàkku xam-xam la ca seen kanam mooy la gën a jara jox yitte li may jëme ci wayjur yi nag mooy ñu xam ne lii moo mat a jëme sa doom mooy di ko taxawu cim njàngam dëgg-dëgg taxawu sa doom mooy jàngal ko yar ko ku defut loolu leneen lum ko mën di defal it ak taxaw bu am solo ko tax ñuy wax te lu ci nit dajit jar na ndax ñooñu ëllëg ñooy taxaw réew mi ñooy taawu réew mi ñooy jëriñ réew mi quatre auteurs yi nga xam ne bokk nañu ci huit livres yi nga xam ne bind nañ ko war ko jox xale maa ngi nuyu baax soxna Fatim yi bu sañ Abi bu bu Touba ca kanam téere bi mooy la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba comme on est dans un lieu spécifique, je préfère parler en français. Donc, euh, je résume un peu le livre, mais je parle plutôt du mot politique. Dans la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, il ne s'agit pas de la conception de la politique comme une technique, mais comme un art. La conception de la politique comme une technique est dépourvu de toute finalité intrinsèque. Nombreux sont ceux qui entrent en politique parce qu'ils veulent, entre autres, jouir du pouvoir, avoir une ascension sociale, être célèbre, et ce au détriment des règles socio-morales. Cette conception de la politique s'est surtout développée à la Renaissance avec Nicolas Machiavel. En revanche, la conception de la politique comme un art, qui est la question dans ce livre, a une finalité intrinsèque. Cette finalité est l'accomplissement de la nature humaine qui tient en deux choses. D'une part, l'homme est un être raisonnable. En effet, le propre de l'homme est de se conduire selon sa raison. l'âme humaine se distingue de l'âme animale par la raison. D'autre part, l'homme est un être social, parce que la raison, qui se lie injustement, intrinsèquement au bien, n'a pas de sens qu'au sein d'une société humaine. La société, la sociabilité est ainsi naturelle chez l'homme. C'est pourquoi, lorsque les Mécois se moquaient de la sociabilité de notre prophète,

mbokk yi maa ngi leen di nuyu misaal di leen jox itam li nga ci am taxaar waaye ñun dama koy teg ci loxol sama xarit rëyu Pape Fall mu tegal ma ko ci loxo sama kilifa yi kilifa yi ma fi fekk yëpp ak mbokk yi ma rawatina suñu doom yi wala suñu rakk yi nga xam ne ñoom la ñuy garal tey mooy jëf ji jëf ju kon soññ leen rek ndax xam-xam ni ko sëñ Tuubaa wax xam-xam moo gën lépp kon bii ci Tuubaa bi dañ cee soxla ay borom xam-xam mag ci domaine bu nekk kon ngeen xam ne am ngeen sas bu sas bu rëy yor leen ginnaaw bi ñu sante yàlla julti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax sëriñ Touba eh, di nuyu bu baax kilifay diine yi fi nekk di nuyu bu baax it eh, kilifa yi réew mi eh, di sant bu baax waa convention di Bawol ci njiit li sëriñ Pape Fall ndax dafa xam li sëriñ tubaa bëggoon ndax sëñ tubaa dafa ñaanoon ca matlabul fawzayni waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi mu ne defal sama dëkk bi mu nekk bërëbu sàkku xam-xam waaye rek de la même mu nekk bërëbu réflexion ak compréhension donc dafa war a nekk laboratoire à ciel ouvert Touba loolu nag moom bi mu ko xamee moo tax mu investir ci ndaw ñi ci encourager leen ñu profité ci kon euh, di encourager bu baax di féliciter xale yi euh, di leen sargal di leen gërëm di leen ñaax itam ndax borom dëkk bi ni ko kilifa gu baax di waxe rek lépp lu mu am ci xam-xam la ko amee dafa wax ne inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa donc lii suuxat li mu amit ci dëkk bi xam-xam rek a ko mën a suuxat kon bu loolu amee dañu war a jouer notre partition ci réew mi ci luy doxal réew mi de la même ci luy doxal àdduna bi parce que dañu nekk fu ñu toll ville fu ñuy wax village planétaire village planétaire nag mooy civilisation du donner et du recevoir looloo waral ñu bind modèle murit ngir expliquer lan mooy conception wu Serigne Touba. mu bañ a yem rek ci dimension sëriñub kese waaye dimension spirituelle dimension économique dimension sociale ak yeneen dimension yépp loolu nag pour ñu mën koo def il faut li ñu naan 4C mooy yi nga xam ne Serigne Touba dafa décomplexé woon doomu aadama te mu koy wax ci masaalik mooy décomplexé par rapport ak race mooy lim naan bu leen xool sama der bu ñuul bi ngir xeeb sama doxalin mu nekk complexe aussi générationnel ñu war koo décomplexé nga xam ne Euh, méngale sax liñ naan waame ak mësëy bay wax ne taw bu njëkk bi donte njëkk na waaye bi ciy topp waame bi mooy gën a bari mu indi aussi euh, complexe ci renommée nga xam ne mooy jamono ji ñu war koo bàyyi xel dafay wax ne sama faible renommée bu mu tax ngeen xeeb sama mbind dañu war a fexe ba conceptualiser njàngaleem Serigne Touba li mu jàngale ñu jaay ko àdduna bi wan leen ko parce que lépp leneen liñ ñuy jaay lépp njàngaleem Serigne Touba jàpp nañ ne moo ñu ko gënal nañ ko concept conceptualiser contextualiser ko suñu paree ñu euh, concrétiser ko jéem koo consolider incha allah te loolu la convention di Bawol nekk ak murid professional euh, ñoo ngi leen di sant bu baax. ci ñu ngi ñu fi teew ñëpp di am mbégte. teew ci kanamu ñi nga xam ni tey dañu ñëw pour sargal leen ci téere yi ñu leen di jox doon ay téere yu am solo yoo xam ni liñ ci njëkk a jublu mooy ngeen commencé constituer wu seen bibliothèque personnelle influence bi ñu bind nag liñ ci liñ ciy wax bu bëri ndax waaye dañ leen di juste raconter histoire de conversion et de voyage li Cheikh Anta bi leen dénk mooy armez-vous de science jusqu'aux dents ministre de l'éducation mi fi nekk tey def ci exemple ndax dëgg boroom xam-xam ku fonk njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba kon yaakaar bi ñu am ci yéen mooy li Cheikh Anta waxoon ni ngeen doon ay boroom xam-xam xam ni àdduna lépp lu fi nekk mën ngeen cee jot loolu la ñu lañ doon baaxee. dañu un temps un moi j'ai toujours dit qu'à côté d'un grand homme y toujours une dame ajaratuma jigéen Diop Fall mu ànd ak ay xaritu démbam suñu waa classe ñu ngi leen di sant baax seen teewaay di leen jaajëfal li tax ñu jox ñu kàddu fii muy suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi nga xam ni dañoo tollu fi nga xam ni jaaroon nañ fi euh, man ngeen a egg fii ñu bari ci ñu doon wax egg te loolu pas-pas rek moo koy mayee ndax moom sëriñ bi dafay wax ni xam-xam dafa am solo lool boo xamee objectif bi ngay fixé li ci des mooy nga am détermination la couleur noire de la peau ne sera guère un obstacle entre la science munul der bu ñuul warul mën a nekk obstacle ci nit ki mu xam li keneen ki xam bi ci teg mooy la science et la pratique sont le trésor des deux univers kon ñaar yooyu ku ko teg sa kanam war ngaa mën a egg fi nga jëm livre bi ñu bind ci Serigne Mountakha nag dama cee am ndigalam bi ma koy bind. def ko version arabe ak version française livre bi dama ko tuddee Cheikh Mountakha Mbacké le calife de la science et des projets ma intitulé ko ma sous-intitulé ma sous def sous-titre bi la gestion des affaires publiques à Touba naka lañ mën a fexe ba Touba nekk une ville religieuse ba pare moderne man mii di wax yow sëñ Muntaxa moo ma wutal bourse ma dem jàngi bi ma ñëwee jox ko sama thèse de doctorat daf ni ma lii rek la ma suñu borom desee loon kon yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy distingué tey les récipiendaires gën leen a amuk dogu te xam ni fu nit yegg détermination moo ko fa eggale fii lañ jàng ci dëkk bi ci daara yi jàng ci école yi génn dem ba génn ci les grandes universités ci monde arabe ak monde occidental te lépp détermination ak roy suñu sëriñ ba moo ñu ko may encore fois di sant convention di Bawal ci collaboration bi ñu am ak Mourides Professionnels jërë ngeen jëf thank you very merci beaucoup sëriñ bi jërëjëfati sëriñ Mourtaha Bachir Mbacké euh, sëriñ Mamor Mourtada Mbacké d'honneur euh, sëriñ Euh, Abdourahman Mbaké, le président d'honneur. Monsieur Mustapha Mamba Kirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le représentant du ministre euh, des Finances et du Budget. Monsieur le préfet du département de Mbaké. Monsieur Abdoulhadka, maire de la commune de Touba. Monsieur Galoba, maire de la commune de Mbacké, monsieur l'inspecteur académique de la région de Diourbel, mesdames et messieurs les récipiendaires, honorables invités et tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et surtout de vous remercier pour avoir bien voulu prendre part à cette troisième édition qui dorénavant est installé dans l'agenda des grands événements du Baol. Il est plus que nécessaire et toujours important de rappeler que la Convention universelle est apolitique et à but non lucratif, œuvrant pour le développement socio-économique et culturel du Baol, mais aussi pour le Sénégal en général, tout en cultivant un esprit d'entraide et de solidarité entre les fils du Baol et du Sénégal. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que depuis sa création, la Convention accorde une importance capitale à l'éducation, ce qui témoigne des multiples actions en faveur du développement du capital humain, notamment l'organisation annuelle des Journées de l'excellence. Les Journées de l'excellence de la CAB célèbrent l'excellence académique des nouveaux bacheliers de la région de Durbel. Ces événements visent à encourager la poursuite de l'éducation de qualité et à inspirer les élèves à exceller dans leurs études. Des chiffres de la CAB, il en existe. Lors de la première édition qui s'était tenue à Mbaké, la convention avait récompensé des bacheliers ayant obtenu la mention très bien, bien et puis assez bien. La deuxième édition, la CAB a primé 191 bacheliers du Baol, dont 181 ayant obtenu la mention très bien et bien, et les 10 meilleurs élèves des écoles coraniques de la région. Pour cette troisième édition, la CAB va célébrer les réussites académiques exceptionnelles de 220 apprenants et ainsi répartis. 32 bacheliers ayant la mention très bien, 181 ont obtenu la mention bien et 7 élèves des écoles coraniques de la région pour magnifier leur performance exceptionnelle et les, et les prix obtenus au niveau national et international. C'est l'occasion de remercier ici l'inspecteur académique de la région et de féliciter tous les professeurs et enseignants, les parents d'élèves, pour le suivi et l'accompagnement ayant abouti à ces brillants résultats. Cette année, l'innovation majeure est de récompenser quatre enseignants, dont deux des écoles arabo-islamiques et deux, deux euh, de l'enseignement traditionnel communément appelé Magalis. Au total, il est important de signaler, considérant toutes les éditions confondues, dès ce soir, la CAP devra être fière de sa contribution à l'éducation des fils du pays en affichant à son compteur un nombre total de bacheliers du Baol dont l'excellence académique est primée. À travers cette cérémonie, je voudrais au nom de la Convention vous transmettre mes vives félicitations pour cette belle réussite et l'honneur que vous avez bien voulu porter à rehausser les résultats de la région au niveau national. Le message est simple. La force et l'avenir du pays, c'est vous. c'est aussi l'avenir du continent. Votre génération a l'opportunité de refaire ce monde. Vous, avez, vous nous avez donné un grand espoir et une satisfaction pour les lendemains meilleurs. Les défis et les enjeux actuels restent énormes. Ils persistent dans tous les domaines et seront encore euh, beaucoup plus accrus avec les effets des changements climatiques. Les effets des changements climatiques notamment les chocs climatiques liés à l'eau, sont déjà là et visibles de partout et ne font que s'accentuer davantage. Les inondations, de toute forme qu'elles soient, les eaux de ruissellement, la remontée de la nappe ou bien le débordement des cours d'eau avec ses conséquences dévastatrices. La problématique de la disponibilité de l'eau en quantité et qualité, avec notamment des ressources en eau souterraine qui deviennent de plus en plus euh, le retard dans les investissements, notamment de l'assainissement collectif, l'assainissement des eaux pluviales, l'assainissement des eaux usées dans nos villes, alors que la population ne cesse de croître. Et il est important de noter comme défi la lancinante question associée à la gestion des infrastructures. Faire des infrastructures, c'est une bonne chose, mais assurer une gestion adéquate de ces infrastructures est le plus important. Bien que des d'énormes efforts sont consentis par l'État, beaucoup de, dans beaucoup de localités, il est temps et plus urgent d'adresser les problèmes actuels de certaines de nos villes, d'anticiper sur celles futures pour bâtir une société durable, notamment à travers une planification et un aménagement urbain plus rigoureux, plus intégré et intelligent, prenant en compte la gestion de la qualité du service. Les solutions existent et celles durables ne peuvent être locales. Personne ne le fera à notre place. Chers ainsi, chers récipiendaires, pour relever les défis et les enjeux et euh, les enjeux de nos villes de façon durable, Smart City, Green City, euh, nous avons besoin également de vous. Nous avons besoin des ressources humaines de qualité, très compétents, couvrant tous les domaines. Nous le devons pour vous-même Et pour les générations futures, cela nécessitera du temps, de la patience, de l'endurance, de l'intelligence, de l'humilité et du respect envers vous-même, envers les autres. Chers récipiendaires, le nouveau cycle, un nouveau cycle démarrera pour vous. Un environnement différent de celui que vous venez de passer avec brio. Après cette cérémonie, je vous conseillerai de prendre quelques jours en famille et ensuite oublier tout. les choses sérieuses vont maintenant commencer. Sur le cycle de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la formation, je vous demanderai solennellement de continuer à rester très concentré sur les études et travailler dur et sans relâche pour faire face à ces nouveaux défis. Chers récipiendaires, l'éducation, la formation, l'expérience sont des clés qui ouvrent des opportunités de réussite. Ayez toujours un esprit ouvert positif et ouvert. Vous devez aussi vous intéresser à ce que d'autres font, même si leurs idées ne correspondent pas aux vôtres, pour créer de nouvelles manières de penser. Formez-vous bien. Et maintenant, chers récipiendaires, plus tard, cherchez de l'expérience qui vous permettra de travailler dignement pour vous, même pour votre famille, euh, et ainsi contribuer aux efforts de développement du pays. La bonne nouvelle, cher euh, la convention en sus de vous primer en partenariat avec Mourid Professionnel, plateforme qui fédère les compétences et expertises Mourid, développera une plateforme de suivi et d'assistance des bacheliers récompensés depuis 2022 jusqu'à maintenant. Chers récipiendaires, vous serez suivis, accompagnés conseiller et orienter. Un programme de mentorat et de réseautage sera aussi mis en place pour favoriser, pour favoriser le développement des carrières des mentorés que vous serez. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier toutes les autorités ici présentes ainsi que toute cette belle assistance. Je ne, euh, euh mes sincères remerciements aux parrains de cette troisième édition Monsieur Abdoulaye Dia, PDG de Sénico. Quelle belle expérience pour vous les jeunes. Nous retenons de lui la simplicité, la discrétion, le pragmatisme L'abnégation, la persévérance et la rigueur dans le travail, ces qualités lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui, un des plus grands capitaines de l'industrie du Sénégal et de l'Afrique. Monsieur Dia a très bien vite compris que rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. La CAB l'a choisi comme parrain afin de vous permettre, chers récipiendaires, d'avoir un modèle à suivre. Nos remerciements les plus sincères vont également naturellement à l'endroit de Monsieur Pape Fall, président de la Convention universelle du Barreau, au bureau exécutif et à l'ensemble des cellules de base, Monsieur le président de la Convention, votre leadership éclairé, votre générosité, sagesse et surtout votre amour profond pour le savoir et la connaissance sont connus de tous. et restera un legs pour la génération actuelle, mais aussi future. Vous êtes un exemple palpant de ce que l'autre disait. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas votre vécu, mais la somme des changements que nous avons provoqués dans la vie des autres qui détermine le sens de la nôtre. Monsieur le Président, vous impactez. Vous influencez positivement des vies à travers vos innombrables actions envers l'éducation, l'assistance sociale pour une réduction de l'ignorance et de la pauvreté. Je ne saurais oublier de m'enseigner sur ce présidium que vous avez toujours défendu et préservé l'image de notre cher Bawol. Vous êtes un modèle. Vous resterez toujours une référence pour nous, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je suis devant vous pour vous dire vraiment dal leen ak jàmm. C'est aussi l'occasion pour la convention de ma part de remercier de façon appuyée tous les membres du comité d'organisation avec à la tête Serigne Mourtala Mbacké ainsi que notre partenaire privilégié Mourid Professionnel qui ont travaillé dans le professionnalisme remarquable, un délai record pour la réussite de cette troisième euh, journée d'excellence. L'union d'une jeunesse intelligente, bien formée, engagée est une immense force qui peut déplacer des montagnes et qui fait la force de notre nation. Ce que nous faisons avec nos frères et sœurs de Mourides professionnels, dont nous sommes tous membres, euh, c'est ce que nous faisons avec notre, dont nous sommes membres. Nous sommes des éternels optimistes, nous y arriverons, Inch'Allah, Tibarki Sirin Touba, Hadim Rosol. Ce que je dirais, boy, bien ambitieuse, bien ambitieuse, bien ambitieuse. Soyez, euh, soyez ambitieux.